ca Sacré-Cœur foofu nag ab explosion de gaz moo fa amoon ci benn kër bu ñu sukkandikoo ci xibaar yi nga xam ne moom la waa kawtef point com daal di joxe yëf yi nag ay dégâts yu bëri la am kenn nag ñàkku ci bakkanam waaye nag ñett nit jot nañ cee am rek ay gaañu gaañu ci ñett ñooñu nag ñu ñu leen limal am na si nag ab soxna rek boo xam ne dafa toll ci diggante moom nag app ci bi moom nag nag dafa daal di rek tëpp ci troisième étage ngir rek mun a mucc.